sax lool lool ba yegg ci lool ni un la may woowe ñu ñaan rek yàlla yàlla nu déddoo jàmm rek ndax koo wax gépp a ko ñàkk xam nga ne lii caaxaan mayewu ko lépp nag mooma bëgg ñëpp ku jaaxle mu dalal la ku am soxla mu faj ko ku sa doom ëmb nga ñëw ci moom ku sa doom tukki bëgg koyit nga dem ci moom ku sa doom bëgg nga bëgg sa doom tukki nga ñëw ci moom mbàkke ñun waa ko lox ñun jaaxle nañu xanaa yu ñaan yàlla rek fa mu ñu féete woon yàlla na fa yàlla féete barki Cheikh Mountakha si soxna Xadi mii ko loxo ko ñàkk du man dong du kenn du góor dong du jigéen dong ko loxo ko ñàkk waaye yàlla na xippe a gën a yàlla na yàlla doolu ay xéwalam ak yéen mi fi ñëw ak képp ko fi ñëw rek barki sëñ Tuubaa xéwali soxna Xadi ku ne xaj na ci yàlla na yàlla doolu nu jàmm Mbàkke Balla bëgg ay taalibeem safoo leen faale leen am yëg lu jaax ne daal boo ñëwee ci moom boo ñaanee sàmbaram def la si xéwal nga yokk ba yëg ko la ngay faj mu faju si daraja yonent barke sëñ Touba bëgg ñëpp na moo waral lii bëgg ñëpp yëg ñëpp safoo ñëpp faale ñëpp moo waral jataay bi xale mag ku ñëw loo am soxla boo am boo ko ñaanee mu fajal la ko barke sëñ Baara ñu ngi koy ñaan daal yàlla na xippee àjjana yàlla na ko yàlla yërëm taasu ci barkeem mu dajanteeg maamam ju baax ji sëñ Touba ak baayam baax la sëñ Baara yàgg na nu man damaa yor daayira sopp na bi saa barki dem moo njaay ba may conférence ñëw na fa ku jóg xew la mu jóg boo amee bànneex mu jóg boo amee naqar mu jóg yàgg na maa xamante moom ñaar fukki at ak maa ngi moom fii ci Ndorong gi maa ngi dëkk fii ci police Ndorong muy sunu lépp baax lool. soxna si dañuy la ñuy commencé mooy ñaan ci yàlla ak yonent bi jëmi Serigne Touba yàlla tas ñu ci barkeem euh, mu doon koo xam ne tey fi mu nii moo doon Serigne Touba ci biir Kaolack ndax bu doon góor tey tey mooy doon xalifa bi. kon ku mel noonu bu fekkee ne ñàkk nañ ko euh, ñun képp kuy jullit xam nga Soxna Xadi Baara Mbàkke amut kenn koo xam ne dana la tànqamlu wala fi mu nekk nii euh, doo xew la Soxna Xadi euh, ñëw ca amul tiijaan bi amul xaajar bi amul layen bi Soxna Xadi jullit la xamoon jullit la xamoon uufoon ñëpp yiroon ñëpp kooku mooy Soxna Xadi Mbàkke mooy Soxna Xadi Baara Mbàkke di kenn ci ci ci Kaolack